gis-gis yu bon yi yenn pas-pas yu bon gis-gis yu bon yi lu ci mel ni ay satanisme lu ci mel ni ay kémitisme lu ci mel ni libéralisme lu ci mel ni démocratie féminisme hmm, laïcité nga xam ne ay pas-pas la wala ay gis-gis la yoo xam dafa wute gis-gisu lislaam ma loolu moom ma tax a jóg pacifiquement nag laa koy waxee teg ko ci ay text alxuraan ak sunna donc mu leer du ma activiste page bi Watawasaw bil Haq sama mbokk ahlu sunna comme man laa gis ni ñoo bokk lenn loo xamante ni ñoo koy xeex moo tax may def live ci page bi mais du ma activiste politique taxuma jóg li ma tax a jóg moom mooy luy defar pas-pas yi luy sauver nit ñi àllaaxira man loolu moo ma tax a jóg loolu dama bëgg mu leer quoi léegi Akon City Akon City dégg ngeen ko fan yi ku nekk jóg di dal ba mu commencé. ñëpp naan Eco City franc-maçon la c'est maçonnique nouvel ordre mondial bee ko fi indi ku nekk di ngaamu ku nekk di wax partout dama leen bëgg woon hypocrisie sénégalais yi quoi laa leen woon ak sénégalais yi si lu dul seeni masla maanaam nu ñu koy sore loolu laa leen bëgg woon d'abord ñu doog a wax ci Eco City bi après ñu wax ci téléfilm yeeg yu mel noonu quoi léegi xam nga gars yi dañoo yàgg wax benn wax quoi dafa yàgg dégg gars yi di wax benn wax ne sëriñ si ak impérialiste yi ak ñi nga xam ne ñooy orientalisme mooy gars yi mu tuddati yi maanaam boo xoolee ñoom benn lañ dafa yàgg quoi depuis jamonoy Senghor ba tey te loolu boo xoolee day confirmer quoi boo xoolee loolu mooy li nga xam ne moom mooy confirmer wu à chaque fois maanaam réeroo wuñu quoi bu fekkee Akon City ni ko gars yi di waxee fii ku nekk jóg wax bu ne dégg ngeen ko fi analyse bu ne dégg ngeen ko fi. activiste bu nekk génn na xalaat TV génn na wax indi ay analyse am teg ne c'est maçonnique Cheikh Omar Diagne moom it indi analyse am teg moom sax moo wax na ci affaire Touba bi moom wax na ci ñu précise ah. Karim Abdou Karim Gueye nitu dëgg nee na moom mooy nitu dëgg quoi moom it génn wax di alerte moom it di analyser naan Akon City nangam nangam affaire franc-maçon kaas dal Macky Sall amul lu mu waxul ah Mollah Morgun moom it génn wax hmm, Akon City dal Macky Sall amul lu mu waxul ku nekk génn na wax Écosse-City franc-maçon yi ko financé nouvel ordre mondial nangam nangam nangam wax ci wax léegi sa même Écosse-City bu gars doon wax naan franc-maçon yee ko financé Écosse-City boobu tey Touba validé na ko Akon dem na Touba xalif bi ñaanal na ko validé nañu projet Akon-City léegi sama question mooy ces grande gueules la yi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon fii di yuuxu démb naan Akon City c'est maçonnique nouvel ordre mondial bee ko fi teg donc man loolu laa foog man loolu laa foog loolu laa jàpp. léegi ñu doon wax loolu tey ñooñu lan la ñuy wax ci Touba bi nga xam ni ñoom ñoo validé Akon City lan la ñuy wax ci xalif bi validé Akon City lan la ñuy wax ci loolu quoi. parce que ñoom ñëpp dañoo génnoon di wax ku nekk di ŋaamu ku nekk di wax Akon City c'est maçonnique nouvel ordre mondial duñ ko nangu Macky Sall nangam léegi sëriñ si Touba validé nañ Akon City ba Akon nee sax day jël musée sëriñ bi yóbbu ko fa waa nee na parce que gars yi dañuy ragal dem Màkka moo tax mu def loolu pour gars di ñëw Touba quoi <laughs> loolu mën naa si ñëw incha allah léegi gars yi kan mooy Akon Akon mooy kan. Akon benn waay la boo xam ni da doon woote ci caaxaan dem la ngeen xool de peut man nag dama déconnecté seen affaire yi bu yàgg mais Akon c'est un gaa boo xamante ni moom lu muy def yépp ay clipam ak yu musique moom mooy woote ci njaalo woote ci ay dorog futti ay jigéen yaramu neen Akon loolu lay def loolu mooy liggéeyu Akon yéen ñëpp xam ngeen ni Akon lu mu nekkoon baaxul musique la doon def te xam ngeen lu yàlla wax ci musique hmm? Akon kilibam ak lépp lu muy def moom mooy futti ay jigéen moom mooy teg ay champagne ay sàngara ay drop Akon si yooyu lay dox Akon yooyu moo nekkoon ay mbiram donc Akon amul xaalis bu mu tabaxee ville loolu leer na parce que ville bi six milliards de dollars la Akon fan lay amee six milliards de dollars Fortune Econ nee nañ environ ay quatre-vingts millions dollars la Fortune Econ environ ay quatre-vingts millions dollars mooy Fortune Econ donc Econ amul six milliards de dollars comme ça veut dire que Econ am na ñu nekk ci ginnaawam te bu leen fàtte Econ defoon na fi featuring ak benn femme bu ñuy wax Lady Gaga Lady Gaga moom nëbbatuwul ni moom dafa jaay ruwam seytaane moom nëbb ko Akon nee na lu ko gën neex ci carrière am mooy featuring bu mu def ak Lady Gaga te lay di géega moom nee na moom moom moom moom làqatuwul ni moom ruwam moom da koo jaay seytaane moom moom dafa jël ruwam jaay ko seytaane loolu moom nëbbatuwu ci làqatuwu ci donc cette école laa nga xam ne moom il est di joob ay framason maçon ay illuminati mu wax ko mu dégg mu leer école nga xamante ne à chaque fois yaa ngi ko gis mu nekk ay maison de production yoo xamante ni c'est ñoo ñu lay joobal foo ko fekk muy woote ci caaxaan muy woote ci lu bon Akon boobu moo am Akon City biir Sénégal te boo xoolee Akon City bi ville pharaonique la gars yi ba nag ñu ngi naan noo kii bi forme bi forme awra la déedéet xoolaat leen Akon City gis nga yooyu népp ay pharaon la te gis nga franc-maçon yi ak satanisme ñoom dañuy dooleel lépp loo xam ne dafa jëm ci ay pharaon maanaam jël symbole pharaonique yooyu loolu dafa bokk ci seeni signe parce lu tax parce que ñoom nee nañ Firawna taalibe Dajjal la ñoom dañuy màggal Firawna quoi Firawna taalibe Dajjal la moo tax franc-maçon yi à chaque fois dana xool lépp loo xam ne symbole pharaonique la ay statue wala loo xamante ne ay monument la loo xam day day day day représenté kii nu mu tudd Firawna franc yooyu ñoom dañ koy màggal ci la ñu créé sax ay Isis ak Osis ak Osiris ñoo ñëpp c'est des franc yoo xam ne existé wu ñu mais ñoom ñoo ko créé benn franc-maçon bu mag bu ñuy wax Sigmund euh, Sigmund euh, Freud moom mu njëkk indi xalaat yooyu léegi boo xoolee Akon City bi lépp boo xoolee image ak yooyu da ngay gis ni ñu ngi ko bind boo xoolee loolu noonu ay franc wala yoo xamante ni moom la ñu décidé noonu moom la ñu yett léegi Akon City un gars qui travaille avec des francs-maçons avec des Illuminati Akon City amul xaalis fortune am ay quatre-vingts millions de dollars la Akon City bi six de dollars la lañ ci financé donc c'est clair ni du Akon moo ko génnee ci xaalisam comme am na ñu ko financé. c'est clair tamit nekkul gouvernement Sénégal ñoo ko financé parce que gouvernement Sénégal seen fortune par année ay 6 milliards de la ay 6 milliards de dollars comme gouvernement mënul financé comme am na doole bu mag bu nekk ci ginnaaw Akon City mooy lan mooy nouvel ordre mondial bi mooy satanis yi donc Akon ñëw na biir Sénégal amal fa Akon City mu wóor lii caaxaan la ma kon dafa pare pour indi ville boo xam ne ville foola ñu fay ñëw ñu ci bëri extérieur la ñuy jóge bu ñu ñëwee biir Akon City ñan la ñuy jëfandikoo nga foog ne Akon day dem bitim réew jël ay xale yu jigéen déedéet du def loolu da ngeen foog ne day dem bitim réew jël ay xale yu jigéen non non no non du ko def suñu jigéen ñii la ñuy jël suñu sœurs yi suñu sœurs yi ñooy mujj dem di jaay wala def naka su dul noonu biir Akon City ay du dem mukk ay États-Unis di jëli ay jigéen du dem France di jëli ay jigéen du dem Congo du dem Argentine jëli ay jigéen suñu jigéen ñi nekk fii la ñuy jëli maanaam dañoo pare pour tas Sénégal pour yàq Sénégal yaxar loolu mooy projet Akon City te nouvelle ordre mondial bi ñoom ñoo nekk seen ginnaaw loolu tey la sëriñ si valide loolu la Touba validé tey léegi loolu di wax ci loolu une ville boo xamante ni. mu ngi soranteeg Dakar wala sud sud capital Dakar cent kilomètres am monnaie boppam am weccatu boppam du Sénégal bu ne moo fa sañu dugg bu paree woon tey du Sénégal bu ne moom moo fa sañu dugg dafa mel ni genre dëkk il faut nga am genre visa wala yooyu mu wóor na ñu fay ñëw ñëpp ay caaxaankat lañ franc-maçon yi benn benn da nekk benn siège franc-maçon bu rëy buy nekk foofu ci Afrique de l'Ouest ñu indi ko Sénégal parce que loolu lañ soxla gaa dañu soxla am benn siège bu franc-maçon boo xam ni day nekk Afrique de l'Ouest dinañ am beneen siège boo xam ni Afrique de l'Est la beneen siège boo xam ni Afrique de Sud la beneen siège boo xam ni Afrique de Nord la léegi siège bu ñu bëgg amal Afrique de l'Ouest moom mooy Akon City parce que Akon amul xaalis boobu sama gars léegi xoolal caaxaankat bu mel ni Akon fookat bu mel ni Akon jékki-jékki rek ñu ngemb ko mu ñëw naan day amal benn ville mu ñëw sëriñ si daal di koy valideel waaye yéen ñu doon wax naan démb Akon City affaire de franc-maçon la affaire de nangam Illuminati la yéen ñu doon yuuxu di kii mais loo leen di xaar pour wax seeni sëriñ yi ngeen doon défendre démb ñii nga xam ne tey bu ñu laalee sëriñ si wala yenn kii ngeen dal seeni kaw mais ñooñu tey ñoo validé Akon City sëriñ soosu tey ñoo accepté Akon City ab fookat ñu accepté ko ñëw ñaanal ko fookat boo xam ne ay caaxaan la nar a indi biir Sénégal tabax benn ville boo xam ne ville caaxaar lay doon moo tax bàyyi leen ay Macky sàll Macky Sall wootewul diine Aliou Sall wootewul diine même bu Macky Sall bu ko validé wala gouvernement mais sax waru leen bett parce que kenn wootewu ci diine mais xoolal ñii di woote woo diine tey ay sëriñ ay kilifa diine ay kon caaxaankat ñëw ñu validel ko loolu nga xam ne moom la bëgg a def biir Sénégal. yéen ñëpp ngeen ne patt nag yéen ñu doon wax démb naan di dal lu ne ngeen wax ko naan Eco City ville franc-maçon la Macky da koo bëgg a def nangam da ko bëgg a defaat nangam da koo bëgg a kenn déggu leen ñëpp ne ngeen patt ana xalaat TV lu tax analyser wul ci tuubaa validé bu mu validé Eco City lu tax analyser wu ko Abdou Karim Gueye mu doon wax naan Akon City franc-maçon la lan moo tax analyser wul ci Touba validé bu mu validé Akon City y compris Mollah Morgun y compris ñeneen ak ñeneen la moo tax validé wuñu Akon City la moo tax waxuñu wu ñu ci Touba validé bu mu validé Akon City comme gis ngeen lu ñu la noor wax gis nga sëriñ si ñu ci bëri képp kuy caaxaan ñoo lay dooleel ci sab caaxaan fecckat bi mbër bi bu ñu ñëwee ñoo leen di ñaanal ñoo leen di dooleel moo tax doole mës a dégg ñuy wax ci fecc wala ñuy wax ci làmb déedéet ñoom yooyu yitteelu leen parce que ñooñu ñooy dugal adiya ñooñu ñoo leen di jox xaalis loolu duñ ci mus wax lu ñuy wax kay mooy adiya bi sëriñ bi moo gën a lépp sëriñ bi mooy suñ yaakaar adduna ak alaaxira liggéeyal sëriñ bi bayal sëriñ bi fonk leen sëriñ bi kese mais jamais nga dégg leen ñu wax ci li nga xam ne moom mooy xew moom mooy xew fii ci ci ci sara ci fecckat yi ci waykat yi ci mbër yi non duñ ci wax parce que ñooñu ñoo leen jox adiya te ñooñu bu ñu ñëwee adiya bu duuf la ñuy joxe. voilà mbëri yeeg fecckat yeeg yooyu non bu ñu demee ci sëriñ si adiya bu duufa duufa duuf la ñuy joxe duñ joxe adiya bu ndaw moo tax doole mës dégg ñu wax ci loolu ban mbër wala ban fecckat wala ban woykat mooy dem ci sëriñ bi dellu bàyyi woy wala bàyyi bëre wala bàyyi fecc amul parce que bu demee duñ ko waar duñ ko wax de ko lii ngay def baaxul bu demee duñ ko xupp déedéet comme que xam nañu mbër bi wala fecckat bi wala woykat bi ci loolu lay amee xaalis pour indi leen adiya rek duñ ko wax dara duñ ko wax dara waaye nag bu fekkente ni bu fekkente ni nag lu jëm ñoom ci seeni poche loolu moom pare nañ pour wax ci mbokk yi comme lii da leen di gën a firndeel nii ñii ñuy woowee ay sëriñ tey ñii ñuy woowee ay sëriñ ak di leen woowee xaw ma ay kilifa diine wallahi seeni bopp lañ fi nekkal. nekk luñ fi diina de bu fekkente ni yow xam nga ni kii di Akon kii di Akon nga xam ni caaxaan la nekkee woon ñépp xam na caaxaankat la amul kenn ku ci werante ay kilibu bu ay taxaw la ay futti ay jigéen la ah, ay leneen ak leneen ak leneen yooyu lañuy def ay fecc ay sangara tey kooku la ñuy validel tey tey kooku noonu la ñu validel kooku la sëriñ si ne tey mën nga def si école cité biir Sénégal comme ñu ngi noonu comme ngeen xam ni sëriñ si seeni poste lañ fi nekkal seeni bopp rek lañ fi nekkal normalement école bu ñëw li ñu ko wax mooy eh ragalal yàlla nga bàyyi sa caaxaan yi mais duñ ko ko wax au contraire sax école ne waa musée sëriñ bi laay laay laay laay yóbbu dugal ko foofu léegi laajte leen laajte leen posez vous la question pourquoi musée Serigne bi biir Akon City boo xam ne nee ngeen c'est maçonnique yéen yéen wax ah yéen yéen a Akon City c'est maçonnique yéen a ko wax yéen ko fi yuuxu fu nekk yéen taalibe yi yéen ko yuuxu fu nekk wax ko fi léegi Akon lu tax Serigne si validé ko Akon City bi posez vous la question lan moo tax Serigne si validé cité boo xam ne c'est maçonnique selon seen wax démb yéen ñëpp doon tëbaka dal naan c'est maçonnique amul loo leen yekkul Macky Sall léegi sëriñ si validé nañ Akon City comme si seen raisonnement yéen sëriñ si validé na franc ci seen raisonnement sëriñ si validé nañ franc-maçonnerie di wax ci loolu un plus un égale deux amul sax dabal ma ñëw mais comme que yéen dëkk boo xam ne ay hypocrite lañ ay hypocrite lañ bu dee keneen moom koo xam ne boo ko laalee doo am problème sañ nga koo laal sañ nga yuuxu bu dee Macky Sall sañ nga laal bu dee Aliou Sall sañ nga ko sañ nga ko duut baaraam bu dee Marème Faye Marème sañ nga ko duut baaraam waaye bu jëmee ci sëriñ si yenn liveurs yi wala activistes yi xam nañu jour bu ñu waxee ci sëriñ si gars yi désabonné seen seeni page wala gaa yi saaga leen non duñ ci wax duñ ci wax bu fekkee kay bu fekkee kay yéen nee cité bi ville bi ville franc-maçon la franc-maçon ko fi def ok léegi sëriñ si valide na ko comme sëriñ si valide nañ loo xam ne c'est c'est franc-maçonnerie hmm? mais Sénégal kooku dëkku naafiq la ñu nekk moom nii rek lay demee dëkku naafiq moom nii rek la da am looy ñeme ak loo dul ñeme comme delloo si leen seen xel yi gis nga sëriñ si wallahi diine taxuleen leen jóg. du ñëpp nag am na ñu ci góorgóorlu mais loolu ñu néew lañ ñay wax yàlla nee na yonente bi nee na wala di delloo nit ñi ci ci ci dëgg ñooñu ñu néew a néew a néew lañ mu ngi leen compter ci ay baaraam bëriwuñ waaye ñu ci ëpp ci sëriñ si wallahi dañ leen di nax diine taxu leen fee toog la tax a toog moom mooy seen poche musicien bi bu ñëwee dañ koy ñaanal mbër bi su ñëwee dañ koy ñaanal fecckat bi bu ñëwee dañ koy ñaanal animatrice bi DJ bi ku ñëw ñu ñaanal ko wax leen ma rek caaxaankat yi yëpp kan moo si mos a dem ci sëriñ bi ba ñëwaat bàyyi ay caaxaanam amul amul benn caaxaankat buy dem ci sëriñ ñëwaat bàyyi caaxaanam amul parce que sëriñ bi du ko wax bàyyil caaxaan du ko mos a wax waaw bi lu ko intéressé mooy luy dugg poche bi lu koy luy dugg non loolu moo ko intéressé ba nag ba caaxaankat bu ñëwee dañ koy teg ci kaw dañ koy filmer génnee ko vidéo filmer ko. ñépp xam ne caaxaankat bi moom moo ñëw seeti sëriñ bi la fois passée gis ngeen benn femme boo xam ne dañ ko yóbbu ci sóoróol ci kaw comme yow leen ngeen tënku ci alquran ak sunna ngeen xam ni alquran ak moom mooy delluwaay lu dul alquran ak sunna neen la tarixa bokkul ci diine tarixa dafa ñëw fekk ci diine mais bokkul ci diine cosaanu diine amul tarixa diine alquran ak sunna diine yàlla nee na yonente bi nee na kese loolu mooy diine lu ci des yëpp ay folklore la nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba fi jógee dafa ne bàyyi naa ci yéen ñaar yoo xam ni boo ci tënkoo di ngeen jub mu ne ñaar yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne alquran ak sunna jeex na waaye bu ñu bàyyi fi alquran ak sunna topp ay nit ñu ñuy nax rek waaw di dund suñu kaw di dooleel caaxaankat yi caaxaankat bu ñëw ñu dooleel la ñaanal la ñoom ñooy ñaanal caaxaankat yi sëriñ si ñooy ñaanal caaxaankat yi te xam na ñii ay caaxaankat lañ léeg-léeg nga naan non sëriñ bi yëgul lu xew xamul lu xew ñoo leen gën a xam lu xew sëriñ bi ñoo leen gën a xam luy dox ci kaw dëkk bi mais s'il s'agit de business bu fekkee business la ñu xam ne ñoom am na luñ ci am noo business boobu kenn du leen ko yàqal kenn du leen yàqal seen business kenn la preuve mooy la preuve mooy moom moom Akon nee na nee na lu tax moom mu bëgg a jël musée sëriñ bi yóbbu ko. Euh, yóbbu ko Touba nee na parce que gars yu bëri dañuy ragal a dem màkk quoi comme que gars yi dañuy ragal a dem màkk moo tax moom Akon City bi mu def ko dugal fa musée Serigne pour gars yi di ñëw foofu lii du waxu Akon dañ ko ko wax loo lii du waxam dañ ko ko wax loo mais est-ce que yéen a ngi imaginer wax jooju nu mu grawee comme ñu ngi xiirtal nit ñi ci bañ a dem màkk maanaam ñu ngi ñu ngi dawloo nit ñi màkk. maka nga xam ne bépp jullit booy julli fa ngay jublu maka nga xam ne sa cinquième pilier wu l'islam pour mu mat il faut nga dem fa gars yi ñu ngi ñuy ragalloo dem màkk gis nga loolu moo lay wane comme ay eh, kon dañ ko ngemb te ñi ko ngemb dañoo ànd ak sëriñ sii maanaam dañoo collaborer ak sëriñ si maanaam affaire bi avant Akon collaboration bi mat na avant Akon di dem foofu avant Akon di dem foofu lu ñu collaborer la bu yàgg yàgg yàgg yàgg après nag ba heure bi jotee ñu ne ay eh, kon demal mu wax loolu bu fekkoon ñi ay jullit xàqal lañ bu fekkoon ñi diina moo leen tax a jóg ba Akon waxee ni ba Akon waxee wax ji lañ ko wax eh bu ko waxati màkkakat mooy dëkk bu ci dëkk màkkakat fa la gi nekk màkkakat fa la ñuy jublu waaye ba waxee loolu dañoo kontaan di reetaan dañoo kontaan di reetaan comme ça veut dire que ñoom message boobu da leen a neex parce que ñoom à chaque fois ñoom dañuy jéem a concurrence ak màkk à chaque fois te suufu màkk sax suufu makk sax moom moo leen gën moo gën foofu noonu à chaque fois xaaral ma tëbal waa à chaque fois euh, léegi noonu loolu noonu école wax ne gars yi bu dañuy ragal dem màkk Akon c'est un grand menteur Akon moom demul màkk moom moom nee na dem na màkk ba umra ok màkk mooy dëkk boo xam ne moo ëpp sécurité ci kaw suuf àdduna bi yëpp ñoo ko xam màkk mooy dëkk boo xam ne dangay dox ba heure bu la neex yor lu la neex ci xaalis kenn du la musa a dogaale màkk mooy dëkk boo xam ne doo taxaw doo taxaw dix mètres yu ne wala 500 mètres wala 200 mètres yu ne am na auto police bu fa taxaw dëkk bu ëpp sécurité ci dëkk bi moom mooy Màkka mais dëkk boobu mu naan xaw ma euh, parce que gars yi dañoo ragal Màkka moo la ñu dafay dem mais dëkk boobu chaque jour nga dégg ay agression ay ñu ñu rey chaque jour nga dégg ay armes yu trafiqué chaque jour nga dégg ay drogue dëkk boobu nga koy déggee comme sa message de Akon dafa am ñu nekk ci ginnaawam ñu gën a fort sax sëriñ si. lu sëriñ si kese de am na ñu nekk ci ginnaaw Akon ñu gën a fort sëriñ si ñoo xam ne moom ñoo ko jox message boobu quoi léegi sëriñ si appuyé ko bu fekkee ne ngeen Akon franc la yéen seeni wax ne ngeen Akon franc-maçon la Akon City c'est maçonnique sëriñ si validé Akon City ñoom lu ñu doon ci seen raisonnement rek ci seen raisonnement bi nga xam ne yéen moom moom moom ngeen di raisonné bàyyi leen hypocrisie bi bàyyi leen hypocrisie bi hypocrisie bi bàyyi leen ko yéen démb yéen doon taxaw fii ku nekk di yuuxu kenn mënul dégg ngeen di yuuxu lu ne ngeen wax ko ay eh, affaire franc son la ma ki Sall moo ko créé Macky Sall day liggéey ak franc-maçon yi eh, lu ne ngeen wax ko waa tey sëriñ si validé nañu Akon City loo loolu loo leen xalaat ci loolu hmm? ñu leen di déglu ay kon franc-maçon la ay kon siti c'est c'est maçonnique yéen a ko wax sëriñ si validé nañ ko ba nee na musée sëriñ bi da koy dugal foofu léegi loolu xalaat ci loolu yéen ñu ko doon wax démb xalaat TV Abdou Karim Gueye ah Makhtar Sarr Mollah Morgun loolu lañ ci xalaat yéen doon wax naa c'est maçonnique ok analyse yi ngeen doon def démb ñu leen di xaar ngeen analyse ko ci sëriñ si nga xam ne validé nañ ville boo xam ne ville bi c'est maçonnique ñu leen di xaar comme sëriñ si wallahi dañ leen di nax ñii seen bopp lañ fi nekkal ak seeni poche ak lu leen di jëmal kanam ak luy jëmal seeni nutrati seeni famille kanam ak lu leen di may tur loolu lañ fi nekkee waaye bu fekkoon diine moo leen taxul jóg Akon bu ñëwee Akon bu ñëwee dañ ko naan eh yow ca biti toppal fële déedéet ah, mais sëriñ si tey caaxaankat bu ñëw fa ngay jubal yi te amul benn caaxaankat buy dem ci sëriñ si delluwaat bàyyi caaxaanam amul soo ko xamee rek wax ma wax leen ma fecckat yi mbër yi euh, woykat yi animateurs ak animatrices yi mannequin yi amul kenn kuy dem ci sëriñ bi ba dellu si bàyyi la muy def au contraire des yi gën a dugg loolu moom mooy lu am waaw comme dafa am benn affaire bu am gis nga maa abdu moo waxoon benn waxaa man damay dellu ci ci ci même sëriñ ah. maa Abdou maa Abdou moo waxoon ne am na ay sëriñu franc-maçon biir Sénégal audio yaa ngi circulé maa Abdou moo ko waxoon te lu mu wax xam na ko parce que moom moo nekk seen biir waxu ko ci ni comme comme moom am bu gisee waxoo comme am na ci xam-xam. am na lu mu ci xam tawul rekk wax ko nga toog de sëriñ bu toog naa la ay man ba may naan daan naa naan waaye daawu man nga foo di kooku yow dafa jékki-jékki rek wax ko nii non non waxu ko nii de dafa am message bu muy lancé ay soo ko fii naan ko fële dafa am message bu muy lancé dafa wax naan leen garaawul loolu dara newu ci alxuraan tere bu leen tere sàngara ak kii tere bu leen tere sàngara waaye loolu loolu garaawul naan leen loolu leen a wax nga toog sëriñ bu toog naa la mënuma julli nga foog da ko wax noonu non noo non daf la bëgg wax julli bi xoolal ñàkk julli dara newu ci loolu la bëgg a wax message boobu la bëgg a lancer sëriñ bu toog naa la ay sànni jamra dama ko contre quoi taxaw di jël ay xeer di sànni comme ça te yonent bi sallallahu alayhi sànni jamra loolu nga foog da koo wax nii non non non waxu ko nii dafa am message bu muy jàllale après day rendre compte gars yi da naan ok maa ngi ci waar bi. temps sax nee naa leen nee leen temps yi mënu ma julli quoi maa ngi ci de temps sax nee naa leen waaw man ba may naan daaw ma màndi ku naanul fii naan fee mais gars yi dañuy dañuy rendre compte quoi gars dañuy job dañuy job ma ne Sénégal moom mooy mooy Sénégal bu dafa neex Sénégal moom dafa lu la neex bokkal këru këru këru këru këru diine wala nga bokk kër kii lu la neex nga def lu neex nga wax waaw lu la neex nga def lu la neex nga wax comme ubbi leen kañ ngeen di yeewu ubbi leen seen bëti ngeen yeewu ubbi leen seen bëti xalaat tuuti xalaat leen tuuti yow sëriñ boo xam ne caaxaankat bu nekk moom moo koy dooleel caaxaankat bu ñëw moo lay ñaanal te bu la ñaanalee doo bàyyi caaxaan da ngay dem continuer say caaxaan mais xoolaat loolu taxaw leen ngeen si ñàngat loolu taxaw leen ngeen ngeen ngeen jàngaat ko quoi ngeen xoolaat ko fecckat boo gis am na sëriñ boo xam ne moom lay takk njël la mbër boo gis am na sëriñ boo xam ne ci moom lay waate moom lay takk njëllam bu événement jotee ci moom lay dem mu xam ni kii fecckat la sëriñ bi xam na ni kii fecckat la xam na ni kii mbër la xam na ni kii woykat la dara ump ko ci waaye ànd ak loolu kooku bu ñëwee dafay ree siiñ ko raay ko kooku yëkkati jox ko après kooku delluwaat ci la mu nekk moo tax gis nga moo tax seetlu woo leen caaxaankat yi nu ñu amee fit dañoo am fit tey benn Wally Seck day génn sol yëre jigéen am fit ah, dara bu ñu waxee mu ne gars yi je yoonam newu ci benn Ngaaka Blindé day génn tey euh, def benn clip clip bu deret taxaw loo xam ne lépp ay ay c'est maçonnique ay jaan futti ay jigéen après bu ne je m'en parce que ku nekk am na sa sëriñ boo xam ne moo la may fit ah tey ñii nga xamante ne ñoom ñooy ñoom ñooy ñoom ñooy mbëri mais lan moo tax mbëri continué lu ñu def mbër la moo gën a bon mbër mbër moo gën a bon mbër maanaam futteeku daanaka def yarumu neen mbër loolu la rek ngemb jiital kaay bu duuf la rek ngemb jiitalukaay bu duuf la rek sa awra yépp nekk ci biti te yonent bi salaa salaam waxoon ni alfaxisu awra pooj pooj awra la lan moo gën a bon mbër ak bëre lu ko gën a bon lu ko gën a xaram amul tey njibarkat yépp tey bu ñu amee bu ñu amee buzz am pouvoir ci mbëri lañ ko jaaree njibarkat yi yépp tey ay Selbé Ndom bu siiwee fan la siiwee làmb moo ko siiwal mooy wax ni diw mooy daan diw mooy daan xoolal lu aju ci bëre rek bëre boo ñëwee bëre fekk fa njibar ndax mbër bu nekk am na njibarkat bépp mbër am na njibarkat day gis sax benn mbër bu commencé di daanu daanu yu bëri ñu ne waaye diw dafa war a wut sëriñ quoi diw amul sëriñ comme loolu mooy diw dafa war a wut njibarkat te lan la yonent salaa wax ci njibar yonent salaa sallam nee na ku dem ci njibarkat nga gëm la muy wax yow weddi nga lu yàlla wàccee ci Muhammad tey mbër yi yëpp mbër bu nekk am na njibarkat mbër bu nekk am na benn njibarkatam njibarkat yi tey ay xale yu ñuy sàcc tey xale yi nga xam ne dañ leen di sàcc tey ñu naan xale bi sàcc nañ ko doomu doomu diw la dafa am tur ak nangam nangam mais ñan ñoo waral loolu ñii di sàcc xale yi di dagg seeni bopp mais njibarkat yi la njibarkat yi ñooy digal nit ki ne ko il faut yow sa sacrifice bi il faut nga def sacrifice nangam soo bëggee sa mbir sotti il faut nga rey xale il faut nga rey puune il faut nga nangam nangam comme njibarkat yi ñu leen gën a bon ci kaw suuf amul te mbër yooyu ñu mbër moo may doole njibarkat yi bëre bu amul woon njibarkat yi dañuy dem ñoom ñëpp dañuy chômage ñëpp kenn du liggéey mais tey Sénégal da ngay dem ba njibar sax nekkatul dara njibar tey nekkatul dara ci bëtu Sénégalais yi ndax làmb ji moo tax làmb ji daa dem ba dagan tey tey bëre moom dafa dem ba dagan quoi ngemb sa yaram gën waxtu waxtu julli ngemb maanaam sa awra rek moo nëbbu sa awra dong moo nëbbu à part loolu lépp dafa feeñ tey ñooñu lañ def ay star quoi ñooñu tey lañuy def ñooy publicité ñooy ay star damay dégg naan Balla Gaye mooy ambassadeur xaw ma de la nag la de paix en Casamance quoi koo xam ne jàngul du diine du alxuraan du diine du français du tubaab dara dara dara dara jàngu ko ñu nommé la ambassadeur parce que lan parce que da ngay futteeku bëre ngay def dangay ngay futteeku yaramu neen di dóorante léegi mbër yooyu mbër yooyu ñooy dem ci sëriñ si sëriñ si ñaanal leen mbër ñooy taxaw bu ñu gañee ñu ne maa ngi sant sama sëriñ nangam comme à chaque fois tu vois que caaxaankat yi bu ñu amee fit sëriñ si ñoo leen di may fit parce que dañuy def seeni caaxaan ba pare xaar ma tëbal waa ji xaw ma dafa mbay yow xaar ma tëbal la yow voilà tëb na <coughs> ñoo xam ne moom ñoom dañuy toog rek di xaar quoi di xaar nga ñëw rek ñoom ñu ñoom ñu dugg quoi mais foofu faut ma leen commencer di tëbal. sa kooku tëb na mbër yi mbër yi yi di caaxaan bu fekkoon tey ñi ñu woowee kilifa diine ak ñi ñu woowee ay port port ak ñi ñu woowee ay sëriñ bu ñu taxawoon tey te mais tey na na sëriñ si na sëriñ si mobilisé wu ne dañoo bëgg cagatu dañ fi sëriñ si nañu mobilisé wu ne dañoo bëgg cagatu dañ fi suba suba suba mu dañ mais duñ ko def duñ ko def Wally Seck day ñëw sol t góor jigéen yor saaku góor jigéen sol tubayu góor jigéen sol yëre góor jigéen ñëpp di ko gis ñëpp xam ko mais su paree day dem sëriñ bi da koy recevoir raay bopp bi ñaanal ko mu dem ñu filmer ko mu dem ñoo ñoo leen di dooleel moo tax gis nga caaxaan ka ci duñu leen faale gis nga Sénégal dañoo mérito Macky Sall da ngeen a mérito Macky Sall bu fekkee ni yéen amoo leen fulla seen bopp moo tax ma la gis nga tant que sëriñ saa ngi fii tant que sëriñ saa ngi fii man du ma sax Macky dara parce que Macky Sall moo leen gën Macky Sall moo gën fuuf sëriñ si am na sëriñ si xam ne ñoom dañoo gëm ne duñu aji dañoo gëm ne duñu aji parce que aj wàcc na leen am na sëriñ su gëm ni kaaba gi mu ngi fee mu ngi dëkku sàngam mais ñooñu Macky Sall moo leen gën parce que Macky Sall dem na aji moo leen gën téeméeri junni yoon am na sëriñ yu dul julli ci am na sëriñ yoo xam ne aljuma du ñu julli ji juma surtout sëriñ yi barkat yi parce que jinne bi moom danaa la bul julli ji aljuma jinne bi bëggul ngay julli ji aljuma waaw dafa bokk ci charte yi waaw malheureux woote bi benn téléphone laa am ah, xaw ma ba woote vidéo direct woote fii direct dina dem fekkee loolu am na ma jël mais man dama faral yor ñaari téléphone quoi benn téléphone laa yor sëriñ su bëri laa la wax ni tey da ngay xool xaw ma le cas de Abdou Karim quoi sëriñ Abdou Karim nga xam ni kooku fecckat yeeg caaxaankat yeeg rappeurs yi moom mooy seen sëriñ la fois passée gis ngeen kilifa kilifa bu yaana maar dafa dem foofu tegal ko musique di ko xool naa ko musique bi laay waaj a génne xoolal ma ba xam est-ce que baax na mu tegal ko sëriñ bi sëriñ bi di enjoy di yëngal bopp léegi ñooñu ñooñu ngeen di xaar pour ñu jëlee fi lu bon ñooñu ngeen di xaar pour ñu tere lu bon non non non non non non non vous déedéet au contraire ñooñu ñoo leen di encouragé moo tax léeg boo gisee fecckat yi gis woykat yi gis ñi nekk animateur rek animatrice yi gën a nekk lu ñu nekk c'est parce que dañoo am fit te ña leen may fit ñooy sëriñ si parce que dañuy def la leen neex dem ci sëriñ bi joxe addiya sëriñ bi encouragé leen ñaanal leen ñu dellu soit ñu dellu nekkaat ci la ñu nekkoon ñu dellu nekkaat ci la ñu nekkoon loolu kese la moo tax sëriñ si ñoo gàllankoor Sénégal gis que Sénégal nee naa leen na Sonko ñëw na Sonko ñëw fekk système bu fi nekk moo fi nekk ba tey système mu sëriñ si système mu tarixa bi ñoo fi nekk ba tey bu sonkoo ñëwoon tamit dara. eh waaleykum salaam Baydi <laughs> sa waay Baydi maa ngi ziar Baydi yow raar nga de comme système bi dafa yàgg depuis Senghor la Senghor moo fi nekkoon ak i sëriñam coali am am benn coalition ak i sëriñam sëriñ yooyu xeex Mamadou jaar jëlee leen fi jële jëlee fi du jaar xeex ko ne terroriste la. comme tey li li ñu wax rek rek terroriste la wahabit la nangam nangam jëlee ko fi système boobu moo continuer Abdou Diouf tamit ba mu fi toogee mais amoon na ay sëriñam yoo xam ne ñoom ñoom la nekkaloon Ablaye Wade ba mu fi toogee tamit amoon na ay sëriñam affaire bi noonu lay demee moo tax gis nga li ngeen di wax Macky Sall dafa am la waroon njëkkee avant Macky Sall Macky Sall deful dara <laughs> même bu defee côté àdduna la quoi ok mais sëriñ am na sëriñ soo xam ne ñoom dañ fee nekk gouvernement bu ñëw ñu lekk ci yow. am na sëriñ soo xam ne dañ fa nekk mais doo leen mës dégg ñu wax ci caaxaan yéen boo leen tëbee dégg ku wax ci caaxaan rek bu nekkul Umar Sall wala mu nekk keneen ak keneen wala mu nekk oustaz boo xam ne moom dëgg moo ko tax a jóg mais nekkul ci kër diine yi lay jóge mus ngeen toog kër diine yi ba toog ba dégg leen wala benn kilifa bu mag ubbi alquranam di tafsir wala nga dégg leen rek ñu prononcé wu wax ci fecc gi wala ci film yu boni wala ñu wax ci làmb ji wala leneen ak leneen duñ ci wax parce que ñu yitteelu leen parce que caaxaankat yooyu ak fecckat yooyu ñoo leen di indil xaalis ñooñu ñooy fecc ba seen xol sedd dam joxe adiya ñooy way ba seen xol sedd dam joxe adiya ñooy bëre ba seen xol sedd dam joxe adiya mais ngeen yaakaar ni tey Sénégal lu ñuy wax fi naan Sénégal Sénégal ñaata sëriñ moo fi am sëriñ yu nekk Sénégal war nañ mat ay war nañ mat ay deux millions mais lan la ñu changé Sénégal jikko yu bon yi ak monte bu nekk Sénégal lan la si sëriñ si changé wax leen ba ko mus ngeen toog sax même même yeneen sax mus ngeen toog ci sëriñ yi ku toog ba wax ci yahud diine yahud ba moytuloo nit ñi yahudisme judaïsme wala di wax ci franc-maçonnerie wala di wax ci leneen ci féminisme wala di wax ci leneen libéralisme est-ce que mus ngeen dégg sëriñ bu toog di wax ci loolu amul amul boo leen fekkee bu ñu waxee rek mooy seen maam balaa ñuy xeex ak xuloo rek mooy dañoo laal seen maam boo laalee seen maam moom laal sëriñ bi non moom pare nañ moom pour pour pare nañu pour tukkil àdduna bi waaye booy laal yonente bi sallallahu alayhi wa wala ngay ñàkkee war ma yonente wala ngay ñàkk war yàlla ngay ñàkk war ma yàlla doo dégg benn sëriñ kenn doo doo leen dégg yëg la ñuy def ba ñu laalee yonente bi sallallahu alayhi ñu sallam ñi dégg rek mooy benn benn sénégalais est-ce que sëriñ si meree nañ noonu yëngalu leen sax mais bu dee sëriñ bi nga laal ñu gën def ay déclaration ñu gën def ay déclaration da ngeen benn kilifa bu mag nee na ku fi def nangam dañuy toj sa kër génne la dëkk bi maanaam ku fi woote ku am beneen diine comme man ma ñëw ma ne man alxuraan ak sunna kese laay dund ñu ne man dañuy toj sama kër parce que man alxuraan ak sunna kese laay dund dañuy toj sama kër parce que alxuraan ak sunna laay dund léegi nag nangul nga nag. benn icône boo xam ni moom caaxaan kat la caaxaan moo ko tax a jóg nangul nga ko mu ñëw validal nga ko ñaata mbokk lañ fi téye toj seeni kër génnee leen kenn ci Pape Kane keneen ci ci ci ci ci xaw nu mu tudd yeneen i mbokk génne nañ leen parce que rek ñoom nee nañu ñun yàlla ak yonent bi kese gëmuñu taarixa te pourtant ay jullit lañ waa da ngeen a génnee parce que nee nañ leen da ngeen war a gëm sëriñ bi am na benn waaye xam ne xam la lañ ko génnee dëkk ba waa ji nee nañ moom du ñëw ci daayira yi nee nañ ci daayira yi xaar mu tëbal Modou Ndiaye <clears throat> ok <clears throat> parce que du ñëw ci daayira yi noonu lañ demee toj këram génne ko këram am na koo xam ne moom nee nañ moom parce que dafa commencé di cëkkal hmm, commencé di bàyyi sikkinam rek ñu génne ko quoi mais nag ñu ngi ñu ngi nangul ñu ngi nangul nag ay caaxaankat ay fecckat ay mbër ñooñu moom ñu leen di accepter di leen nangul waaw di jël seeni adiya waaw ban dëkk lañ nekk léegi lii ku ko wax ñu ne da dingat boo waxee dëgg ñu ne ñu saaga la dëkk la fi nga dëkkul nee naa leen dañoo tollu jamono joo xam ne tey dootuñu toloore kuy tuuti yàlla yonentaam doon ñu ko toloo loolu jeex na ngay tuuti yàlla ak yonentaam ñu toog noppi loolu jeex na loolu amatu fi jamono jooju wees na jamono jooju du jamono ji loolu jeex na kon mbokk yi dara si leen xel bi gis nga àllaaxira benn jëm la la yàlla di laaj boo duggee ci bàmmeel benn jëmm jëmm jooju mooy kan mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam jeex na boo duggee ci bàmmeel kenn dong lañ lay laaj loo xam ci mbiram wallahi kenn du la laaj ab sëriñ sëriñ fii la yam gis nga islam mooy gëm juróom benn ponk yi gëm yàlla gëm malaaka yi gëm téere yi gëm bisu penc gëm yonente yi gëm téere gëm ndogal ba te neex ak ba te nakari loolu mooy jëf yu nëbbu yu jullit war a fas ak jëf yu feeñ di juróom wax ñaari baatu seede yi taxawal julli joxe asaka boo ko amee war weeru koor aji màkk boo ko mu ne lii mooy diine tarixa mbokk yi du diine tarixa daa fekk si diine daa waliyaan si diine mais diine ba muy door sans tarixa la diine sans tarixa mooy cosaan diine avec tarixa loolu lu ñu sos la diine avec tarixa loolu lu ñu sos la mais diine sans tarixa moo jiitu saxaaba yi dund nañ yonent bi sallallahu alayhi wasallam dund na ba jóge fi ak i saxaabaam alxuraan ak sunna kese la saxaaba yi jóge nañ fi saxaaba yi jóge nañ fi ba dem alxuraan ak sunna kese lañ doon dund ginnaaw saxaaba yi taabi'oon yi nekk nañ fi ba dem alxuraan ak sunna kese lañ dund ginnaaw ñooñu na ña topp ca ñoom nekk nañ fi ba dem alxuraan ak sunna kese yàlla nee na yonente bi kese lañ doon dund senegal tarixa islaam dugg na senegal ba am mille ans tarixa doog a ñëw ku ko indi mooy Umar Fuuti dugg na Sénégal ba am milan tarixa doo ko ñëw comme tarixa yàggul tarixa lu bees la dafa wàlliyaan si diine mais bokkul woon ci diine doo dee ba yàlla laaj la ban tarixa nga bokk doo dee ba yàlla laaj la ci ban sëriñ nga jébbalu woon déedéet loolu fii laa ko waxee comme delloo leen xel yi ngeen xam ni ñii seen bopp lañ fi nekkal dañ leen di nax Akon bu ñëwee ñu recevoir ko Akon bi ngeen ne franc-maçon la yéen a ko wax ci seen wax laay toppaat Akon bi ngeen ne franc-maçon la Akon moo ñëw ak Akon City bi sëriñ si ñoo ko valide sëriñ si validé nañu Akon City comme yéen ñu doon wax nag Akon franc-maçon la je le répète analyser ñu lii dama bëgg ngeen analyser ñu Akon bi ngeen ne franc-maçon la ak Akon City bi ngeen ne c'est maçonnique sëriñ si validé nañ ko nangul nañu Akon ok ñu ngi xaar ci yéen nag ngeen analyser ñu lii bii paa nag bëgguma hypocrisie ngir yàlla rek bii paa moom pas d'hypocrisie bu leen ay sëriñ bi xamul lu mu demee de wala yëgu ko de loolu moom laay ba loolu mooy li may a dégg moom laa bëggul dégg voilà ma ñëw si ñaareelu point bi mooy téléfilm yi euh, yi nga xam ne tey mu ngi tasaaroo biir Sénégal quoi mu nekk moyen de business boo xamante ni ak moyen boo xam ni yàqukatu lislaam yi ak nouvel ordre mondial bi ak franc yi ñu ngi ci ginnaaw làqatu fa di tasaare boo leen seetloo bu njëkk ñu daan jouer ay théâtre hmm, mooy ay daare Kocc wala ay peut-être ay ay waa Ndar je ne sais pas Golbert Diagne wala ñeneen da ngay gis ne ay nit lañ yoo xam ni ay temps amoon nañ sax lu ñuy jomb tuuti quoi maanaam amoon nañ yoo xam ni doon nañ sóoraale seen njaboot doon am tuuti lu ñuy jomb mais léegi. dafa am beneen boo xam ne moo feeñ dafa am beneen phénomène bu feeñ léegi phénomène bi mooy lan mooy dañuy dem jëli ay nit yoo xam ne ay nit yu ñàkk kersa ñoo xam ne amuñu rusukaay léegi ñooñu la ñuy jël ñooñu la ñuy recruter def leen ay casting ñu joué loon ay ñoom ñooy joué tey téléfilm yi ngay gis ci tele yi gars yi nag am ay kii yoo xamante ni ay télé yoo xamante ni dañ leen a njëmb financé leen lu ci mel ay mbarodi lu mel ay event pro ñooñ ñooy dawal yooyu léegi boo xoolee ñoom ñoo ñuy jëli tey ñoo ñuy recruter pour ñu jouer ay téléfilm mooy ñoo xam ne joom dafa des ci ñoom quoi mooy amuñu jom quoi mooy ay mannequin te boo xoolee ñu bëri ñu nekk ci série série yi ñu ci bëri boo xoolee ay mannequin lañ mannequin mooy koo xam ni amul kerse ko mannequin amul kersa mannequin mooy koo xam ne da ko naan tey solal lu gàtt solal génnee say ween solal génnee say pooj nga défilé mu def ko mooy moom dañ koy digg rek muy def ko mooy kooku amatul kersa mooy kooku amul lu muy jomm amul lu muy rus parce que bu fekkente di yow danga ñëw ñu joué la ñu ne yow yaay mannequin mannequin nga ñu ne tey ay góor a fi toog ay góor a ki jigéen ci benn salle solo lu gàtt génneel say poñ nga défilé boo ñamee def loolu rek mooy yow amatoo benn rusukaay mooy yow moom kersa moom dañ na ci yow léegi boo xoolee téléfilm yi ñooñu la ñuy recruter. léegi ñooñu ñooy joué ñooñu nee nañu ñooñu yee ay mannequin ay mannequin ñoo xam ne seen liggéey mannequinat la ñooñu tey lañ ne ñoo ñoo war a yee sénégalais yi waaw mannequin léegi nee nañ moo war a yee moom moo la war a yee moo la war a yee yow moo war a yee suñu société est-ce que yéen a ngi xalaat wax ji wala ñu dem jëli ay animatrice ñoo xamante ni seen métier mooy animatrice yeewu suba ba ngoon teg musique di fecc léegi ñaari ñaari léegi ñooy ñi nga xam ne ñoom ñooy joué téléfilm yi ngeen di gis ak série sénégalaise yi ngeen di gis ñaar ñii ñoo ci nekk mannequin ak animateur wala animatrice ñoo ñoo fa nekk léegi nag ñu xaw ci rax benn benn ci théâtre kat yu yàgg yi kon li ma la bëgg a wax dañoo xool ñoo xam ne dañoo ñàkk jom ba noppi maanaam amuñu jom amuñu kersa quoi parce que liggéey mën a kenaa moom mooy mooy ko amul kersa moo ko mën a def koo xam ne kersa jom jom amul jom quoi amul rusukaay quoi parce que mooy nit koo xam ne dañ lay futti muy góor muy jigéena ah gis góor boo xam ne day sol benn kos wala sol benn jaget dindi kii nii wane dënn bi génnee dënn bi nii di manifester di dox di mbiic bon kenn du xam lu muy ñuul quoi jigéen ñi tamit noonu la dañuy recruter ay jigéen ne la ok yéen défilé leen solal lii solal lu gàtt génnal say wenn fantal ata doxal ci biir nit ñi comme kuy def loolu rek mooy kooku kersa jeex na ci moom léegi ñooñu nag la ñuy recruter ñoo ñooy jouer série série yi ngay gis ak téléfilm yi ñooñ ñoo ci nekk quoi léegi nag ñoom seen lay mooy dañuy yeete yeete bi xam nga lay demee yeete bi ñuy yeete mooy jigéen la boo xam ne dafa am jëkkër dem di tëdd ak keneen ok ñu ne dañuy yeete yeete bi mooy góor bu am jabar dem di tëdd ak keneen ñu ne dañuy yeete yeete bi mooy yow da ngay nekk jigéen boo xam ne da am ay téeméeri far tey nga dem fii suba nga dem fee gannaaw suba nga dem fee ñu ne dañuy yeete léegi nag film bi yëpp noonu lay doxe film bi yëpp man temps yi gars yi dañoo bëri lu ñu may wax ci loolu naa ma téléfilm yi téléfilm yi ma xaw ci coof tuuti seetaan tuuti am na benn série infidèle série bi xam nga nu mu demee jullit ñi lañ jël ñu def leen ay caaxaankat maanaam chrétiens yi ñu def leen ñu baax léegi jullit ñi ñooy ñi nga xam ne ñoo am jëkkër ba pare am far dem di tëdd seeni far di njaaloo jullit bi moo am moo am jabar ba pare bàyyi fa jabaram dem di tëdd ak maanaam beneen jigéen léegi ñu joué ci film bi ne chrétien bi ñaari jigéen góor ak jigéen chrétien bi ñoom ñoom dañoo téye seen bopp ñoom dañoo fidèle quoi ñoom dañoo sàmm seen bopp ñoom dañuy xaar mariage léeg ki nga xam ne nag moom mooy nag jullit bi di jigéen moom dafa infidèle moom day bàyyi jëkkëram dem tëdd ak faram est-ce gis ngeen lu gaa yi bëgg a jouer foofu te pourtant nag jullit ñi ñoo koy seetaan di kontaan di ko xaar di enjoy ci film bi. xooluñu sax gars yi lan la bëgg a jouer foofu ban message la gars yi bëgg a lancer maanaam jullit bi moom jullit bi moom moom mooy ki nga xam ne am na jëkkër am far dem di tëdd ak faram mooy koo xam ne am na jabar dem di tëdd ak beneen jigéen waaye yëf keneen ki nag mooy mooy mooy chrétien bi moom nee nañ moom moom moo téye boppam ko moom moom moo sàmm boppam moom moo fidèle moom moo ci foowul moom mooy xaar ba mariage ñu leen di saaga yéen julli ñi te bàyyi woo leen ci xel film boobu noonu la tëddee léegi film bi yëpp boo xoolee loolu la diw ëmbal na ke diw moom mu ëmbal ke diw dafa am jëkkër am far léegi loolu film yu boo xoolee loolu yëpp film bi noonu lay déroulé ba pare ñu ne dañuy yeete yeete boo xam ne lu ci ëpp quatre vingt pour cent ci njaaloo la njaaloo rek akay wax yu bon loolu moom mooy yeete bi léegi nag film bi bu demee bay waaj a jeex nag ñu indi la tuuti nag ci fin bi ne la diw de rëccu na kee rëccu na kee nangam la léegi loolu benn lay la maanaam yeete boobu benn lay la mais xam lan lañ bëgg message bu ñu bëggoon jàllale nañ ko mooy yéen jigéen ñi garaawul dama leen ngeen tëdd dëkk am leen jëkkër mais am leen far loolu amul problème yéen góor ñi am leen jabar waaye am leen ay gal dama leen ngeen tëdd ñoom amul problème film yooyu loolu lañ leen bëgg message boobu lañ bëgg a lancé moo tax téléfilm sénégalais yépp daa am ñu nekk seen ginnaaw mbaroo di fan la jóge ba jëkki jékki am xaalis Marodi TV dafa jékki-jékki rek am xaalis Event Pro dañoo jékki-jékki gis nañu commencé di produire hmm? nekk ci affaire yu chic ba pare ñu naa la ñoom dañuy yeete boo xoolee ñu ci bëri ci ñoom réalité sénégalais du moom la ñuy wone mais lu bëri ci série yi kër yi ñuy dëkk ay kër de luxe la mais Sénégal 90 pour cent sénégalais est-ce que ci ay kër de luxe lañu dëkk déedéet déedéet. série lu ñu ci wane mooy booy lekk ci taabal ngay lekk taabal taabal ah taabal ngay ndekkee ay ñoom jus d'orange ngay teg ak ay ak ay kek yooyu ngay teg est-ce que ñu bëri Sénégal loolu la ñuy dund bu ñu ndekki jus d'orange la ñuy naan <laughs> non non du loolu mais tey même sax la ñuy wax ni rek ñoom dañuy wane euh, dañuy wane li nga xam ne mooy daw Sénégal wala ay réalité loolu du dëgg wane wuñu réalité parce que boo xoolee ñëpp belle lay wan belle vie ay jigéen boo xam ne jékki-jékki am na xaalis am na appartement am dëkk ci appartement bu rafet ah ay piscine yooyu lañ lay won ay ndekki sur table teg cake teg jus d'orange teg yooyu mais lu bëri sénégalais nekkul loolu lañuy ñuy dund ça c'est pas vrai mais lu ci gën a garaaw rek mooy sa jikko bu ñuy yàq ak sa diine bu ñuy yàq film yi yëpp parce que gars yi gis nga gars yi nii mooy gars yi nekk ci ginnaaw franc yi ak nouvel ordre mondial gars yi ba ñu toogee yàgg naa si réunion bu ñu defoon Euh, yaakaar naa prototo euh, protocole bu Toronto dañoo ne nañu xool julli ñi duñ nañ xool gaa yi gëm yàlla nu ñu leen di faagaagalee ko am kenn ku xarañ ci ñoom ne leen noo faagaagal loolu du solution nañu dugg seen biir maanaam nañu teg ay tele teg ay rajo ah teg fa suñuy nit ñuy jàllale message loolu moo gën a gaaw ci yàq bu dee ba ñëwee gis nañu tele yi ak rajo yi surtout nag ba kii yu ñëwee nag mooy xarale yi. foofu la ñuy jaar pour mën a yàq nit ñi boo xoolee tele bu nekk am na ñaar ñoo xam ne ñoo la fay ñoo la fay représenté ci animateur ak ci ay journaliste ak ci ay caaxaankat te xoolee télé rek animateur rek animatrice yi boo demee Sénégal am na ñaari animateur yoo xam ne ñoom lañ gën a teg ci kaw lañ gën a yëkkati ñuy toog rek di valoriser caaxaan di valoriser mbon kenn ki mu ngi TFM keneen ki mu ngi xaw ma fan mu ngi euh, Sud FM xaw ma léegi ñaar ñoo da gis leen di may benn buzz leen yëkkat da ngay jékki-jékki gis leen yëkkatiku am xaalis doo xam fu ñu jëlee seen xaalis nga commencé gis ay télé doo xam télé yi fan la jógee ak fan la sosoo Youssou Ndour télé bi caaxaankat yëpp fa lañ nekk ñëpp bon ñëpp fa lañ dajaloo am na ñu baax nag mais ñu yàq dëkk bi yëpp fa lañ dajaloo ci animateurs yi surtout ak animatrices yi surtout nga xamante ni ñoom. suba ba ngoon da gis télé suba ba ngoon bu guddi jot lu ci am njëriñ soo koy génnee du mat 30 minutes lu si des yépp ay caaxaan la gars yi bu ñu ñëwee sa gaa yi noonu islaam yi ak gars yi nga xam ne ay taalibe seytaane lañ bu ñëwee dañu xool dëkk bu nekk dañu xool côté bu nekk ñaar ñoo xam ne dañ leen di yëkkati may leen doole soo xoolee côté mbalax musique da ngay dégg doomu coon sec bi ak beneen ak keneen ki da ngay jëkk rek gis leen ñu commencé tukki commencé am alal doon oto yoo xam ne amul fenn loolu du seen musique moo leen ko may gars yi war nañ taxaw làcce fan lañ jëlee xaalis boobu temps maa ngi dégg ministre bi mu ne dañuy laajte xaalis benn parti politique bu ñu kii mais war nañ laajte bi xaalis bi musicien rek caaxaankat yi mais fan lañ jëlee seen fortune parce que musique bi mayu leen ko ko bu ñëwee ci côté côté mbalax gis nga ñaar la ñuy yëkkati ba ñett mais leen buzz ñu siiw ñuy mën a def lu leen neex di wax lu leen neex bu ñu demee côté rap day gis dib la ak ngaaka ñoom rek ngay dégg dib ngaa ko jékki-jékki gis ñu am alal doo xam fu ñu ko jëlee dib la moo tax mu génn def ay clip ay clip bu def si ay signe franc-maçonnerie ñuy wax mu naan non du ma franc-maçon du ma nangam loolu da ko gars yi jàngataat ngaa ko beleg la moo tax mu jékki-jékki génn jël clip boo xam ne di sangu ci piscine deret def yaramu neen jël jaan wekku ci mbagg bi loolu na gars yi posé wu question yooyu ak beneen booy xaw ma nu mu tudd je ne pas léegi posé lañ question yooyu léegi ñaar moo am ki nga xam ni moom gars yi dañ ko recruter ba noppi dañ ko jël ba noppi ne dañoo bëgg nga defal ñu lii ak koo xam ne moom bëgg na ci génn te xam na ni musique Sénégal wala rab bi doxul il faut mu def ay genre mbir yoo xam ne message la message yoo xam ne franc-maçon bu ko gisee dañ ciy kontaan mooy la cas de Ngaaka bu mu génnee noonu def ay piscine direct ni ba mu jógee kaso génn def clip di sangu ci piscine boo xam ne piscine deret la ak jaar ak yu mel noonu di wax ay wax yoo xam ne def ay signes franc-maçonnerie yooyu def ko pour neen loolu da koo def pour wane ni maa ngi ci gis nga ci pare su paree ci loolu lu mu bëgg da koy am su demee ambassade dañ koy tamponner visa fu mu bëgg a tukki dafay tukki maanaam léegi comprendre nañu deal bi naka la demee léegi mënoo tëb tëb rek il faut yow nga neexal gars yi pour gars yi mën la yëkkati il faut gars yi boole seen ñaar la am na ñoo xam ne moom dañ leen a recruter bu yàgg. bu yàgg lañ leen a recruter pour pour ñoom ñu mën a taxaw def liggéey bi am ñoo xam ne ñoom dañuy def signé dañuy iri gars yi pour gars yi woo leen moo tax boo gisee ku ci génn li ngay def mooy ay woyu mbëggeel ay woy yoo xam ne yu bon la génn ay jigéen ñoom dañuy sol dañuy sol du n'importe quoi def mu neen parce que loolu boo ko defee rek après gars yi lay bàyyi xel foo dem sa mbir day yomb noonu la fa demee léegi nag. ci kaw mbir yëpp ak caaxaan yëpp nga xam ne ñu ngi koy gis suñu dëkk ak sëriñ si nekk Sénégal mat ay 2 millions et quelque wax ban sëriñ ngeen mës a dégg rek mu wax ci série wax leen ban sëriñ ngeen mës a dégg mu wax ci lu bon li wax leen ban sëriñ ngeen mës a dégg rek mu wax ci làmb wala fecc wala way wala mbir yi amul doo leen ci dégg loolu moom buñ ñu ci waxee ay benn benn ñoo ciy wax kenn kenn moo ciy wax mais ñoom jamais de la vie. tey téléfilm yi ñu ngi yàq dëkk bi ñu ngi yàq xale yi te surtout xale yi te jeunes yëpp tey amul film bu ñuy tardé amul téléfilm yi bu ñëw xam nañ ban heure la ak ban waxtu la xam nañ kañ lay daw ak acteur bi kañ la ak tuur yi ña ci nekk kan ak kan kan la xam nañ ñëpp. ndax Sénégal moo bugg télé Sénégal télé dafa bokk ci affaire am dafa bugg seetaan télé léegi ñooñu la ñuy won da xëy suba ba ngoon ay Pape Cheikh Diallo lañ lay won ay booy boobu naan day lépp je ne sais pas booy booy booy boobu rek nee na moom comédien rek day lépp xaw ma ak beneen booy télé bi ku ko moom télé Youssou Ndour la Youssou Ndour université Yale bu New York université boo xam ne fa la ñuy former franc-maçon yi dañuy jox prix Youssou Ndour est-ce que doo leen posé wu question boobu pourquoi université boo xamante ni ñooy former franc-maçonnerie franc yi di jox prix Youssou nduur université yàlla bu bu bu bu New York Youssou Ndour génnee na fi ay temps temps yàgg na live TV live TV live c'est quoi live lan mooy xool loolu benn bët la studio xippil xippil lan mooy xippi benn bët mooy xippi mu génnee journal tuddee ko L'Obs lan mooy observé benn bët mooy observé te benn bët alison la ci franc-maçonnerie mooy dajjal bi question yu posé wu leen ko laaj leen ko c'est des messages yoo xamante ni maanaam message yu graaw la yoo xamante ni dañ koy def duñu duñ ci bàyyi xel fekk ñoom yaa quelque chose comme genre yi bu ñu amee télé bu leen xaar télé boobu non di jàllale lu baax déedéet di defar jikko yi même oustaz ya fa nekk yan oustaz la mooy oustaz yoo xamante ni ñoom bi ñuy promouvoir mooy ay ay caaxaan rek ay ñu fa nekk ay Pape Hann la je ne sais pas ak ndaw soosu femme boobu euh, femme nu mu tudd femme bi ne woon musique dafa xaram waaye Youssou Ndour lu woy rek dëgg la hmm? seen oustaz boobu oustaz bu jigéen boobu moom nee na musique dafa xaram waaye Youssou Ndour moom lu mu woy dëgg la voilà ak beneen oustaz Pape Hann hmm? nga xam ne dëggul sax arab mënul mënul mënul composé benn mu arabe wala phrase arab bu jub mënu ko ñoo ñoo fay nekk invité ñoom Gana Messere nga ne bu ñu ñëwee wax toj toj jël sëriñ bi teg ko ci kaw yàlla teg ko ci kaw yonente bi ak ñoom euh, xaw ma bichri ak ñeneen ak ñeneen temps loo gis ay comédien ay dof ñaari dof yoo xam ne ñoom lañuy teg temps ci tele bi nee nañu waxu dof la ñuy wax ñoom ay vues yu dul jeex kenn ki moom moom fanaana moom nee na moom waxu dof lay wax nee na sénégalais waxu dof moo leen neex te il a raison sénégalais yi tey bëgguñu kuy wax yàlla bëgguñu kuy wax yonent bi bëgguñu ku leen di wax ci at ci ci xam-xam ci jàng ci liir non bëgguñu loolu waaw ah, Sénégal dafa bëgg reetaan reetaan Sénégal neen dafa stressé quoi Sénégal ban stress moo fa nekk dëkk boo xam ne chaque jour wax ñoo dàq wax kuy wax Sénégal foo romb nit ñaa ngi wax nit ñaa ngi lépp dëkk lépp la foo romb nit ñaa ngi même tey affaire tarixa yi ñu gëm ni lu ñu ko yóbbee rek mooy ay lépp bëgg ay lépp que affaire tarixa yu bëri nii ay lépp la rek maanaam bëgg lépp moo ñu jàpp ba ci diina ci sax lépp boobu bëgg lépp boobu daf ñu topp ñu gëm ay lépp xaaral xaaral ma bloqué Moustapha Diagne mi quoi bëgg lépp parce que tey lu ñu gëm ci diina ay diw deewul dafa fanaan diw deewul xaw ma dafa làqatu ci montagne ba njagara mais bëgg lépp la bëgg lépp rek moo ñu yóbbee loolu ay diw dafa julli ci kaw garab gi mais loolu bëgg lépp la rek ay diw nee na géej gi randul mu randu loolu bëgg lépp la ay léebal ay wax lu dul dëgg dañ ko def teel a def suñu bopp ba nga xamante ni même suñu mbiru diine dañoo indil ay lépp ñu gëm ko waaw accepté ko mais bu nekkoon dëkk normal la est-ce que ñaari comédien yooyu nañ fi nekk di lëmbe nga xam ne da ngay toog ba mu jeex mënuñu la wax benn xam-xam du xam-xamu àdduna du xam-xamu alaaxira benn xam-xam mënuñu la ko wax mais dafa am ñu nekk seen ginnaaw parce que dafa am ñoo xam ne loolu lañ bëgg waaw dafa am ñoo xam ne. lu ñu bëgg mooy ay nit yoo xam ne ñoom loolu lañu bëgg pour gars yi fàtte parce que benn instant bu fekkente ni xam nañu heure yi kat nit ñi ñu ci wax yàlla nee na yonente bi nee dañuy fexe teg loo xamante ni nit ñëpp dañuy bàyyi loolu dem ci ñooñu di leen déglu ay ponkal nag nekk ci gannaaw quoi ay ponkal tu vois gars yi nu ñuy invité comédiens yi non non dafa am ñoo xam ñoo nekk ci gannaaw loolu lañ bëgg parce que yi bu ñu toogee di wax waxu comédie na keneen ko wax am solo dañuy bëgg kooku nga bàyyi ko fa dem déglu comédien bi dañuy bëgg Oustaz Alpha miy live wala Ousmane Cissé miy live non bu ko déglu jamono jooju lañ lay tegal ñaari comédien ne dama déglu comédien yi dama déglu yow fu dof bul yeewu parce que dafa bokk système dafa bokk ci système ci plan nouvel ordre mondial bi mooy maanaam surtout africains yi ak jullit ñi bu ñu yeewu nañuy gën a nelaw rek nañuy gën a nelaw waaw ñoom loolu lañ bëgg seen système système nouvel bi ci la bokk mooy nu ñuy nelaw léew nit ñi ñuy gën a nelaw moo tax ñuy dooleel foo moo tax ñuy dooleel musique ñuy dooleel bëre day gis bëre day jékki-jékki bëre bi day taxaw ñu ne noo xaalis amul nga jékki-jékki dëggaat beneen somme bu riche ñu ne noo 500 millions 600 millions teg nañ ko diggante Balla Gaye ak ak Modou Lo nekk ci ginnaaw loolu te pourtant ñoom gars yi ñoom Gaston ak Nicolas dañoo waxoon ñoom amatuñu xaalis mais da ngay jékki-jékki rek affaire bi day jógaat ñu nekk seen ginnaaw moo tax maanaam caaxaan yi arrêté arrangé wu leen il faut caaxaan yi di dox sénégalais yi gën cee nekk ñu gën a nelawloo sénégalais yi ñoom ñuy gën a def la def loolu la comme gars yi maa ngi yemale fii live bi xam naa ni mu ngi commencé gudd comme gis ngeen ko Sénégal mu ngi noonu quoi Sénégal moom euh, lu ñuy valoriser à chaque fois imma bokkaale imma caaxaan mooy dëkk boo xam ne lépp a fi am bu dee bokkaale Sénégal fii la buujoo waa Sénégal ngay dégg ni diw moo sàkk yàlla loolu Sénégal rek la am doo ko dégg feneen Sénégal ngay dégg ni diw bu ñu santoon ñu bàyyi julli ñu bàyyi julli Sénégal nga koy dégg amul feneen Sénégal ngay dégg ni diw yonente la Sénégal ngay dégg ni diw moo gën yonente bi Sénégal ngay dégg ni yowmal qiyaam bu yàlla taxawee ne yonente bi taxaw ne ma romb ko dem ma romb leen dem wuyu ji bi waaw Sénégal nga koy dégg ne yowmal qiyaam bu yàlla taxawee ne euh, yonente bi taxaw ne sëriñ bi taxaw ne ma romb yàlla ak yonent taam dem wuyu ji sëriñ bi Sénégal nga koy dégg boo ñëwee bida bida sos si diine lu ci bokkul Sénégal la buujoo Sénégal la buujoo fii nga koy fekk boo ñëwee ci caaxaan ngóor jigéen Sénégal la buujoo col gu bon Sénégal la buujoo Sénégal foo làmb foo làmb rek foo làmb boo ñëwee Sénégal fekk ko fi du fi dégg moo tax Sénégal yéen noppal leen seen njiit yi maanaam yéen lu ngeen am da ko mérito ma yàlla moo leen di nattu il faut ngeen lii dañ ko mérito nee naa leen billaahi da ngeen di taas ba sonn rek yéen yéen a mérito lii comme que yéen da ngeen jël ay nit jëbbal leen seeni bopp bàyyi fi yàlla comme lu leen dal da ngeen ko mérito bu leen wax kenn dara lu Iblis wax rek keroog yow mal teyam ba mu taxawee gars yi naan ko yow Iblis yow ku bon kii lépp yow la lu ñu dal yow la yow yaa bon yaa nangam mu ne eh, eh. mu tàccu leen xam iblis dafa mën a tàccu tàccu leen yuuxu ne leen dimbali leen ma falaata luumu nii wa luumu anfusakum bu leen ma yedd yedd leen seen bopp comme sénégalais lu leen dal bu leen wax kenn wax leen seen bopp yéen la ni ngeen mer rek loolu mooy te quoi ni ngeen mer rek da leen yàlla di di wuyu soo quoi voilà moo ma leen <laughs> Sonko daa waroon toog ngeen xam Sonko na toog lu fi nekk continué na Sonko toog Serigne Sidi naxaate continué fi nekk na Sonko toog bokkaale yi continué di fi nekk ngeen xool ba xam dëkk bi dina dox fii laa leen ko waxee te lii live la te vidéo du effacé wu fii laa leen ko waxee voilà comme maa ngi ko yemale fii euh, lu jub ci wax ji ci yàlla la lu ci dëng ci xëy na sama njuumte la euh, di jégalu yàlla borom bi subhanahu wa taala moo xaale nag nee naa la man du ma activiste sama yoon newul ci politique sama yoon newul ci Macky sama yoon newul ci Ousmane Sonko man wootekat laa ci yoonu yàlla man bokkaale laay xeex bidaa laay xeex pas-pas yi bori laay xeex franc-maçonnerie kémitisme libéralisme démocratie féminisme ak jikko yu bori man lool laay xeex sama yoon newul ci politique sama yoon newul ci Macky Sall duma activiste loolu laa bëggum leer man luy sauver nit ñi àllaaxira luy gàllankoor nit ñi àllaaxira di bokkaale te am ñoo xam ne ñu ngi fi toog di wuyoo ay sëriñ di fas yéene réeral nit ñi di leen gëmloo seeni bopp di jël seen place yàlla di fa teg seeni bopp man ñooñ ñoo ma tax loolaa bëggoon mu leer waaw jaajëf sama gars yi maa ngi leen